nañ ko waxtaanee nañ ko waxtaanee mu jeex waaw gis nañ sax ay soxnaam tamit génn nañ waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy loolu bay interpellé ki nga xamante ni moom mooy première dame Marième Faye saal nga xamante ni jigéen la si ñoom dikkaat nañ tamit ci seen doom cité kër góor gi barricade yi fa amoon yëpp ni ñu ko dundee ci wàllu politique loolu tamit ban euh, gis-gis nga si am sañ nañ ko parce que jëkkër buñ ko téyee nga nga bañ a génn wax yow yow yow yow doo dara génn gi ñu génn wax interpellé première dame ne ko waxal sa jëkkër mu dimbali suñu jëkkër bàyyi ko loolu kay sañ nañ ko mais premier daam seen nag tey su fekkoon fekkoonte ne Ousmane Sonkoy président jël jëkkëram Macky Sall def ko noonu eh, mu génn di ñaan na seet <laughs> na seet loolu bu doon ñaan tey bu loolu kon nu ñuy def kon dana nangu ñu may ko kon nag léegi li ñuy def mooy na ñaan première daam mu waxtaan ak président ci jigéen li man ci góor bëri na bëri na loo xam ne bu la ko góor ñaane nga bañ waaye bu la ko jigéen ñaane nga may koko benn ne ko ci dañ leen may loolu ja soxna yi rek la wax doy na doy na dañu sarax suñ jëkkër bàyyi ko Macky Sall na eh, Mariam Faye na wax ak Macky Sall mais loolu la ñoom jigéen lañ wax na ñu seen bokk jigéen ba xam ah loolu mooy mooy mooy solo bi wax seen bokk jigéen rek su ko nangoo baax na bu ko nanguwul baax na waaye de dana génn di sonk dana génn nag ma wax leen ko tey wax naa ko waa sud yi samedi nee naa leen dana génn ci nii baa ci na génn ci nii nag moo gën am déet am génn de sonko génn ci nii baa ci naa génn moom dana ko def keneen ku du sonko dana génn ci nii baa ci naa ñoom ñëpp ay génn ci nii baa ci naa kon na leen sarax moom mag génn leen ci nii ñu dem balaa balaa naa di am mu ñaaw voilà parce que nii mën naa nekk génn dund naa mën naa nekk génn ñàkk génne ba. Ah, waaw mu ngoog waaw ah, loolu laa ah génn ci nii ba ci naa rek da ngay génn ak sa bakkan baa nga génn ak sa ñàkk bakkan ñu jël la suul ci loolu kenn ñaanu ko yàlla kenn ñaanu ko yàlla li ñu ñaan yàlla daal na président sarax leen sarax ma man na ma sarax sarax ku mel ni man bàyyi ko bàyyi ñi ñu jàpp ñëpp. na leen baal ngir yàlla ak yonent bi ñu ñuy jàpp itam ñi nga xam ne jàpp ni ñuy xiifal na ñu bàyyi xiif bi ngir yàlla ak yonent bi fu jeex parti Pastef bi nga xamante ni tamit jamono ji nga xamante ni tas nañ ko ñu bëri di ragal ni Ousmane Sonko bëgg nañ def le tout pour que élection yi ñu jëm 2024 du ci bokk te sànq yaa ngi wax kaawu Khalifa Sall ak ki nga xamante ni moom mooy Karim Wade lii nii 2019 nii lañ defoon ba bokkuñ si mu mel ni tànk yooyu lan nar a jaar ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Ousmane Sonko bu ci bokk bu ci bokkul yàllaa ko yore yàlla bu ne dana ci bokk kenn mënu ko cee tee bokk yàlla bu ne du ci bokk kenn mënu ko cee tax bokk yàllaa yor lépp yi nga nit ñàkk a yor dara moo tax ñuy xëccoo ñàkk a moo ñu tax xëccoo waaye ku xamoon ne yaay doon président euh, ren jeex na ku xamoon ne yaa koy doon déwén jeex na waaye kenn xamul ku koy doon dañuy làmbatu rek kuy làmbatu nag da daj benn nga daj baax na benn nga bañ a daj sonko yoon wuñ ko mën a awale fu fekk yàlla ànd ci rek yoon wuñ ko mën a awale dafa fekk yàlla ànd bu ci yàlla ànd rek mu aw ci bu ci yàlla ànd du ci aw keneen noonu keneen noonu xam nga yéen a ngi reetaan ay jazaakaak maître alay Diouf bu ñu président ngeen mais pour pourtant mun nañ ko nekk yàlla waxul kenn dara mën nañ ko nekk du dara yàlla ku mu fal jàppale la ku mu fal dana la téel sa tànk tubay téel la sa tànk sa ñoor tubay yàlla moo mel noonu. Cheikh Ibrahima laaj bi a laaj dinañ dem élection boo xam ne président bi du si bokk te jii bu fekkente ni dañu war a am président bu bees lu jëm ci wàllu jukko ci wàllu jaar-jaar ana ban critère la sénégalais yi war a mën a basé wu pour am président boo xamante ni dina taxaw si jafe-jafe sénégalais yi. jub rek ku jub rek ku jub daal mu jeex soo jubee. mën a jiite ñëpp soo jubul doo mën a jiite kenn ni jub rek ku jub mooy am yërmande ku jub mooy mën a dimbale ku jub mooy mën a def ni jub rek moo xanaa xamoon ne Macky Sall liggéey na nag wax dëgg yàlla nag ku jaar croisement jam ñaajo gis la fa ne xam ne liggéey na mais nit ñi ñoo mel ni ñu mel réew mi mel ni ñu mel kenn gis nga boo fi nekkee doo liggéey mukk mukk mukk muk mukk dañ lay taxaare di jaxase rek di yàq yàqali nit ñi nit ñi itam ànd ci loolu du noonu du noonu nga nit bu defee dara bu defee lu baax danga naan def na lu baax ci dundam mm-hmm. ok su defee lu bon ngeen ko bul defati lii baaxul loolu kenn bu ko boo kenn yëg waaye bu dee lu baax ne ko nit ñi yëg mm-hmm. loolu mooy dëgg mm-hmm. mais ku dem euh, croisement ku dem jam euh, ñaajo xam ne liggéey na ah liggéey na wax dëgg yàlla man sama yoon nekku ci man faruma fenn man duma politique du ma dugg ci politique xaw ma luy politique duma ma ko xalaat a def politique wu diine rek laa nekk yonent bi rek laay wooteel ak yàlla jeex na ah laal yàlla maa ngi sa kaw ku laal yonent bi maa ngi sa kaw ku laal diine ji maa ngi sa kaw ku laal alxuraan maa ngi sa kaw ku laal jàkka yi maa ngi sa kaw lépp seen sa kaw sax laal amul benn werante man yooyu laa wax man yooyu laa nekkal man nekkalu ma yi ci des mais Macky Sall jàmbaar la dañ ko jàppale waaw gis nañ fu mel ni Pastef mu am benn kuréel buy regroupé doomu daara yi gis nañ fi tamit docteur Abdourahmane Diop mu def benn symposium invité doomu daara yi ne moom kat programme dina leen si boole tey ji yow bu candidat doon ñëw di leen seet si en tant que doomu daara lan nga leen laaj wala seen programme ana lan leen ci cër man du leen laaj dara duma leen laaj seen programme ndax du ci bokk hmm? ma leen laaj dara ma si bokk hmm. man du bokk ci yooyu dama ne la du politique ndax am naa lu ma doy daara yii diini jii daayira yi euh, këru mag ñi yooyu lépp ni nekk fi ñu di leen xeex ma baleen fi dem di ànd ci politique pour lan am na ñu taxawul politique kon kay nañ leen taxaw fee taxaw fii rek kon duma leen wax dara duñ ma sax seesi du ma leen wax dara suñ koyee boo xam ko man sama yoon nekku ci lool man daal sama politique daara yi moytu boo ci dalee maa ngi sa kaw diine ji moytu ko diine ji moytu ko baax mag ñi itam moytu leen rasulaay moytu ko yàlla moytu ko jàkka yi moytu leen moytu leen lépp baleen ko fale waaw kay man ma baleen fële bawuñu ko fële maa ngi seen kaw man ma féeg féeg maa ngi dund rek maa ngi ci maa ngi ci guerre bi rek duma ci dellu ginnaaw du ma dellu ginnaaw benn virgule ci sama àdduna du dellu ginnaaw mukk féeg maa ngi dund maa ngi maa ngi rek su ma dee woon sax du ma dellu ginnaaw ndax am na ñoo xam ne danaa leen laal. billaahi wal kitaab ñoo xam ne suma ma dee woon sax danaa leen laal waxuma laa nag eh, eh, affaire politique politique yi dañ ko bàyyi ñi mu ñor ñi mu ñor na ñor na leen ñi mu ñorul ñoru leen waaye ñun mënuñoo nekk daara bëgg nekkaat politique mënu nekk. gis nañ ku mel ni sëriñ mu ne moom candidat la ci jongante yi tamit nee na li mu bëgg mooy doomu daara yi seen bopp xam ni réew mi lépp luy de responsabilité mën nañ ko occuper ndax jàng nañ am nañ xam-xam looloo tax mu bëgg a sóobu ci làng. waaw bu ko neexee bu ko neexee ak ñamu neex. nañ nañ ci sóobu rek. ñoom kay loolu lañ bëgg man li ma bëgg wax naa ko. ñoom wax nañ liñ bëgg nañ ci nekk. man maa ngi ci li ma bëgg. mais doomu ah bañ a leen xam-xam réew yàllaa ko yor da koy jox jaam yoral ko ko waaye yow xam nga ni ñi mag yi def lépp loolu nit da koo man mais ku yàlla jàppale moo man loolu ku yàlla jàppale moo man loolu ak boppam bi bopp dafa nga ni coowul sénégalais yi seen riir mii bopp bu ko àttan bu ci yàlla àndul da ngay dof waaye mag yi dara dalu ngay xam ne yàllaa yor mbir yàllaay doxal mbir yi yàlla sàmm mbiri nañu jox yàlla lépp di dox suñu tànk suñu doxee bu ñu joxee ñu jël bu ñu joxul ñu muñ ci sant ko nag ci xaar